Serigne Sidi di naar jenn koy defee at mu jot muy xaru tabaski yi nga xamné da ko yobul ki Touba di khalif général des Mourides l'olé Yobunoko, qui ci dimanche ji le 26 juillet 2020 Serigne Sidi, anda mbollem talibé yi ak rakam yi ñu yobul Cheikh Mamadou Mountakha Mbacké Bachir lu tollu ci ñaat téeméeri xar ak juróom fuku l'olé di lim bo xamné yokuna buñ ko daw ndax daw ñaat mu nekk liggéey boo xam ne at mu jot Serigne Sidi Naar jenn da koy yokk ànd kook mbooleem njabootug Serigne Naar jenn gi ak mbooleem taalibe yi kilifa yi nag nii lañ def ñoom ñëpp jiitu ànd ak taalibe yi ñu jiital xar yi jaar ci tali nga xam ne moo jëm ci juma ja dem fekk ji Cheikh Mamadou ca daarul minan ci yoon wi yëpp nag taalibe yi ñu ngi wane mbégte gi nga xam ne lañ àndal ci ay zikar biñu ñu fi ci darul minan bolem kilifa yi ñew nañ tok and ak talibé yi ñu jital xar yi ñepp dal ñu xaar serigne muntaha mbake bashir genn ñew gis xar yi and ak mbekté lol serigne Sidi Naar jaayante jaayantewaat ak mom yeesalaat ak njébbalam ak mbolem jabot gi ko liggéey bi serigne muntaha mbake bashir bekk ci fatali ko kóllëre gi nga xam ne dox na ci digënté moom ak serigne Sidi Naar tam nekk lu yag lol sëriñ bi dafa wax ne sëriñ Sidi moom ba mu jógee rek laamoon amoon ci moom yaakaar. jëflante man. mu ne jëflante ak moom. wàllu yéene ak mu ne wàllu yéene ak yitte ak Pastef. àggoon na ci noonu ñuy def gone goo yaakaar. mu ne àggoon na ci noonu ñuy def gone goo yaakaar. di ma ma di ma di mu ne di ko fàggul moom sëriñ Sidi. ci ay ñaan. ci ay ñaan. foofu la la tàmbalee ak moom. mu ne foofu la tàmbalee ak moom. yàgg na lool mu ne yàgg na lool. sëriñ naar ci boppam xam na sama diggante ak moom. mu ne sëriñ naar ci boppam xam na diggante sëriñ bi ak sëriñ Sidi. seereeloon ko sama diggante mu ne seereel na ko digganteem ak moom. mu yëg ko lool. mu ne mu yëg lool. xam naa ne mu neex ko lool. mu ne xam na it mu neex ko lool. loolu bu ñu demee ba agsi fii. fii day mu ne day tewlu rek. gëna sant suñu borom. gën ngir boole gim ñu boole ak sëriñ bi. mu ne ngir boole gim ñu boole ak sëriñ bi. gën sant sëriñ bi itam. muy suñu lepp tay ak ëlëk suñu lepp bi rek biti. Eh, sama cant googu sëriñ Sidi mi. mu ne cant boppam ak sëriñ Sidi mi. mu ne daf koy seereel suñu borom mi ñu boole ak sëriñ bi. ak sëriñ bi mi ñu boole ak sëriñ bi mi boole nu doyloo ko sëkk suñu suñu mu ne tey tey ni ñu doyloo ko sëkk suñu diggante ak suñu borom. sëriñ bi rek. mu mooy mooy mu ne kon sëriñ bi rek mooy suñu tey lépp tey ak ëllëg. amuñu benn xemmemteef. mu ne amuñu benn xemmemteef. tey ak ëllëg tey ak ëllëg. budul ngërëmal sëriñ bi. kon nag ngërëmam loolu. mu ne kon ngërëmal loolu. mu ne sëñ Sidi xam ne yéene ko. mu ne sëñ Sidi mi na xam ne sëriñ bi yéene na ko. jiitaluma sama ko ca. mu ne jiitalul boppam teg ko ca. ndax mu ne ndax cant ak ngërëm diggante ak maa ngi leen mu ne mi ngi leen koy seeral mbokk taalibe yëpp. yéen sama mbokk taalibe yëpp. mu ne mi ngi leen koy seeral yéen mbokk taalibeem yëpp. mu ne noonu dong la demee. mu ne jërë jëf. mu ne mi ngi gën a yeesal jaayanteem ak Serigne Touba. mu ne di gën a yeesal ak pëstéefam. di gën a feddale sama laxasaayam. mu ne di gën a feddale ak laxasaayam. fas yéene koo ànd ak moom mii. fas yéene koo sëriñ Sidi mii. ak suñu mbokk taalibe yëpp. yi bokkal sëriñ bi. jërë ngeen jëf. jërë ngeen jëf. mu ne xol bu mënoon a weesu sedd. maanaam weesu na ko di wéy. mu ne cant it mënta mënta weesu cant. mu ne waaye kon mu weesu ko. mu ne jërëjëf. Serigne Sidi dafa wax ne mi ngi gëna a wat bu baax. di wat di jébbale njaboolu njabootuk Serigne Naar Jenn gépp. ak taalibeem yëpp. Serigne bi nee na mi ngi ñaan yàgg fi lool. nee mi ngi sant tey gërëm nee di yeesal ak njëbbalam nee ak ak jenn mi ngi ñaanal bu baax nee wala rem wi tam mi koy sant bu baax nee teewe liggéey bi rek moo ko tax a jóg nee jërëjëf Mbacke na ñëpp talal sëriñ bi ñaan te bi ñu agsee fii ci daarul minan mboolem kilifa yi ñëw nañ toog ànd ak taalibe ñu jiital xar yi ñëpp dal ñu xaar Serigne Mountakha Mbacké Bachir génn ñëw gis xar yi ànd ak mbégte lool Serigne Sidi Naar jenn jaayantewaat ak moom yeesalaat ak njébbalam ak mboolem njaboot gi jébbal ko liggéey bi